yéenekaay yeeg Mamadou Mouhamed Ndiaye ci jërë ngeen jëf ab gëstu bu yéeme bu jur ay résultat yu doy waar moom la l'observateur xëyee ubbil yéenekaay bi enquête bi mu ngi soxal jigéen ñi jaay seen bopp ci xibaar yu mu jële ca centre de référence de la prostitution ba ca polyclinique bu ndakaaru ci la sukkandiku ba wax ñu ne xayma ñu ci département bu ndakaaru ñeenti junniy jigéen ak juróom benn téeméer ak juróom fukk ak ñaar yuy jaay seen bopp mu tegal ñu ci ne ci diggante benn fan ci weeru janvier bëbërkaati démb fukki fan ak ñaari téeméeri jigéen ak fanweer benn yuy jaay seen bopp ci jigéeni mbedd yi ñu xayma ci département bu ndakaaru am na ci ñoom lu ëpp ñaari téeméer yoo xam ne dañoo siddaat te ba léegi terewul ñoo ngi wéy di jaay seen bopp ci jigéen ñoo ñee di jaay seen bopp ci dëkk bi l'observateur nee nañu sénégalais yi ñoo jigéen ñi Nigéria yi topp ci jigéen cosaanoo ci réewum Gine topp ci l'observateur topp kaa bi ba daje ci ak benn femme bu am 70 ans nee na moom juróom fukket ak benn ngi muy jaay boppam pëlisub Kébémer ci boppam la Sénégal mi ngi ñuy xamal ne policier yi fa nekk ñu bari ci ñoom mise à nañu leen rompat ak keccaato xamadi def ci kaw tali bi moo leen ko jural lépp nag yéenekaay bi nee nañu jëwrin gi ñu dénk wàllu transport di Mansour Faye moo ko sooke ne keroog dafa taal watam topp tali ngir bëgg xam tracasserie policière yi chauffeur si di joytu ba tax transporteur ne dañuy gerew benn fan ñaari fan ceeru décembre loolee ñuy wax joytu ana la demee yéenekaay bi nañu bi muy tolloo ak Kébémer fa la gis embouteillage bu mag mu wàcc xoolal boppam la mu fa gis neexu ko muy wax police yi jànni ko dàq ko tegal ko ci Mansour Faye ne waa laas ci laa woowee ministre def commissaire bi boole ko ak commandant bu corps urbain bi Mansour Faye ne xamul nag la ca topp waaye gis na ne daal ne ba muy dëppaat gisaatu fa benn policier bu fa monte fa mu mujjee la Sénégal nañu moo di ñoom policier yëpp ya monté woon foofa la ñu mis à pied depuis àjjuma jusqu'à nouvel ordre waxi police ba tey ak policier yeeg li ñu dund démb ak kii di Barthélémy Dias lise ko nañu moom candidat bu yeewi askan wi di Barthélémy Dias dafa bëggoon a dox mbokk démb ci mbeddi Ndakaaru yi police ko ko mu bañ ñu jàpp ko ko police ub gannaaw bi ca lañ ko libéré libération nañu da doon dox mbokk takk deri ne ko bokk ca nañu ci guérilla urbaine nag ci la ñu jëm ndax Barthélemy Dias nee na dox ne moom am na droit dem fu ko neex li neex le témoigné nañu moo di police ak préfet bu Ndakaaru ak ni ñuy doxaleek Barthélemy Dias fu mu ne tëll ñu ne ko kirtim loolee bu ñu moytuwul ñoo ko nar a defaral yokk ko ay soppe xàllal ko yoon wi ko nar a dugal mairie bu Ndakaaru le mandat nañu Barthélemy Dias li mu ngànk yàbb yu ko nee dafay battar campagne ba sàmba di ca dem demba lu mu ci góobe gar ko vox populi nañu génnaa ci ndax démb bi ko Pape Ngagne Ndiaye invité ci faram ci télévision Futur Média fa xam le teg na lépp fi ne bëggul fitna di am ci réew mi di jógee ci moom ndax moom Barthélémy Dias du nitu fitna nitu jàmm la Walf Quotidien li mu gis ba bind ko moo di li am ci réew mi opposant bu yëngu takk deri teg loxo Antoine Diome mi leen yilif mu àndutul ak sagom journal L'Info ne ko moo taxit moom Antoine Ndiaye cekke ndax muy juge constitutionnel bii di Aminata Aly Ndiaye di Doudou Ndir njiital Sénat li gaa bëgg moo di ñu jëli leen fa ñu nekk ki nekk ci xët mu jëkk Sud Quotidien mooy Abdoul Aziz Tall ministre de la République ba woon directeur de cabinet du président de la République ba woon moo xëy séq waxtaan wu yaatu ak journaliste yi Sud Quotidien yi ci waxtaan wa ca la waxee moom mu lay ne démocratie dëgg ci am réew oxygène la gën a soxla ci ci Sud Quotidien la dafay xeesal xeesal bi waa ji di def neexul baay bi baay bi tere ko ko mu bañ yamu ca ndax lob nee nañu dafa dóor baay bi ba gaañ ko papa ji 82 ans la am moom booy bi def loole di Abdoul Diaw journal bi mi ngi ñuy xamal ne tribunal tëj na ko juróom-benn weeri kaso